ñëw mu faj aajaati من زيارتي المهيبة لما يفعل سوى أو إليك قد dameel yéey yéey dameel dameel di dameel dee ca dameel samba yaaya faal xob la benn faal ak gañ sëri jébbaleen sa bari xob saa burkuba ca la maan faati mbàkke xam na lanu ñaan ma ko du sallak may masa masa ngoni ñoom xam nañu kuy Cheikh Ibrahima Fall Seyna Bob Soxna Balla Mam Njaay aboon daar daari Fall njaga kenn du mam Cheikh Ibrahima Fall Ahmadou Fall Sar Njaay Biram Njabi ma cangaay góor dëgg Baay Lalla Fall Baay Serif Asan Fall maami Serigne Cheikh Digal Fall genn di borom dalaa'ilul xayraati yitteem nu dul ku ñëw mu faj aajaati di borom dalaa'ilul xayraati yitteem nu dul ku ñëw mu وقال في دلائل الخيرات معجزة بي إلى الخيرات سيبا بكر ويلمون تيدم باخ تي فجد ملي تمودي نتكباخ يا رجب بركي بركب رمتباخ يا نسري asalaamaaleykum wa rahmatullah isaari bokki jàngkat yi yëpp am na isaari baax a baax jaa ko yaakaar di nga gis ma ana soppe yonent bi na ñëpp màggal yonent bi jar ko màggal leen borom guddi gi ko ay mu محمد من بلا خمل ku yaakaar ni nga gis ak moom bila fay Mustafa ku yaakaar ni nga gis ak moom yàlla bismillah ma fende di am way jëme ko ci yonent bi nekk gëm rasulullaay ku bëgg yonent bi loxo teg nu màggal Mustafa ma ca bayti laay صوتي والرفاع رفيق النبي المصطفى خار أنبأ أيها جبل المختار لا تنزل فمن ينسى فالمد مد المختوم كل جلت عن السير والنسم مخمات غير الخلق كسب يا رسول الله دفلني نمك محمد رسول الله مقامات خير الخلق عن غير بي مخيبة فلتقرأ عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله اللي سلام من لو الأمر كلوك به محمد المعراف معين ومعني وبالإذن مغضاض مصون حد واسمي مجيب مجاب مرتد ملك النداء وبأن مبعوث إلى الحرب والوجب مجيب مذكور ومخصوم من الناس والوام مدينة رسول الله أنما كان محمد رسول الله مدينة يا مددم مدينة يا مدغم يوم يا الله خير الخلق أنا صبي برم توبا محمد رسول الله مدينة حلم مرتجب من تلنا جريء ومنجد من سنوب ومن سلم ما الله أن من نبي كل فاسد وزرت بعبد خدما بلا خم من الله رب الذي يبقي صلاته حيث للمصطفى المخجل اليمين سري بابكر سواي دنيا واي كنان ku sopp sëñ Babacar loxo te ko sa waay du ñee waay keneen sa waay du xaj ci jëm feneen la gëm di gëm dina doy na xarnu bi nun di jëfi wilaaya la nu wan moom bi dindi la woon wàcc ak di ko wan noonu gi nu gisee la ma ta

مالكي سكورا ولم تسل يا مالكي سكورا Sadi Hassan

du woowee ngay seet dama faa jur sama njaboot génn diwul leen nàmpale ebre bu jàpp mooy ma fee man moo tax ma day أمر بجميع فيها من وأطرافنا يا رسول الله أنا كم بقصي تمدم المقال يا رسول الله بقنا كيلكي نسمع لبايا دينا واتو كيف كنا نقول سوما يبي من دينا وات يا رسول الله ci doom du nit Ahmadu ñoo ngi lay woy ay ballay sa ay ballay sa sodaani ñoo ngi lay woy ay Mbàkke ganaari na mu rek wax ko tank dama deenti ci abdou mané ko baax ak ni ndax di bu fessé del du yobbu ma sha Allah yalla yalla yagal la fi ba li nga fassé digé ci diiné nga matalé ko ci ni ko bëggé ñun dé bis mi tay fasante na ak yow kolere insha Allah rabbi te geej fa nek geeñu nek na nga japp ni sa bo soxla dañ bayyi suñu yépp ñew ngir sa jëm ju baax ji deug yalla serigne birane mi yag nañu wax say wax way yalla dogal ñu ñëw teew ci sa bis bii ci bis bu màgg bu tedd bii nga xëy ne bis bii moo gën téeméeri guddi kon guddi gi ñu fasante kóolare ñu ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam woy wi ñu ko yonent bi nga yóbbu ñu ko xoromal bu baax a baax a baax ba saa ci waxee rek mu neex mu neex nit ñi ñu la koy ñaanal te di ko sàkku woy wi ñu ko bi di tagg xasee sëñ Tuubaa yi fu ñu ko waxee rek nag ñu ñaan ko xoromal na ko ndax xorom si mënu cee ñàkk te ni ko waxee macha allah am na bu baax a baax. kon ko fi teew yàlla su borom faj say aajo saaru mbaate na di jégalu bu baax a baax kàddu yi gudd na lool waaye olof day wax ni ku gis nen di nen a ngi te macha allah ñi ngi jégalu bu baax a baax di ñaan daal yàlla yàggal sa taxawaay jëwri ñi ngi tuwaat bu baax a baax ak yéen ngi nu dalal nga ñu tadi guddi gi moo xaw a xat ci ñun lool nga xay ne ñi ngi jëm ci barab yu bari yoo xam ne seen wax dëgg yàlla téléphone yi sax boobu ba léegi mi ngi sone waaye amuñu firu sax ko waaye ñi ngi ñaan ci barke Seydina ku fi teew suñu borom faj say aaju saahir ma baati nag jëf ñu ngi baax baax di saari suñu bokk suñu bokki tuddkati yàlla yi nga xëy suñu xarit lan te ñuy daje fu bare bare ñu bokk teen ñooy lama say goj rek la ngi ñëpp ak ngeen jëf la la moom raasi ko jox ko say pexe mos ni xibaar ak ñi bëloo bay wax ni yàlla mi ko Sabihan ka na Ahmadi dafa ni ñu màggal Seydina Muhammad Seydina Muhammad yàlla ko dugg wax ci alxuraan man ko naan wa innaka la ala xuluqin aziim Muhammad Seydina Muhammad Seydina bëgg leen Muhammad Yeah. 감사합니다. 음. sama dëkk nit nag yàlla daa dogal kenn du la may lépp nga jënd mais boo kenn du dogal dañ maa rus te bëgg ma ñu seen tubaab fu ma leen woo rek ñu dagg seen yi te yëpp teew kon ñu ngi leen di ñaanal jégalu am baax sëñ maa ngi jégalu yow sama waay bi bi yàlla xam na ne tey xam na loolu barki alxuraanu karim bàyyi nañ ci ay programme yu bëri yoo xam ne dañ cee waxaale woon ba ñu war ñu dogal ne ànduñu ak ngir dara woowuñu it ngir xaalis wala dara waaye nit comme ni ma ko waxee léegi rek da ngay gis nit bëggal ko sa bopp ngir sëñ Tuubaa moom looloo ko dal ci moo tax fu mu ñu woowee rek dañuy bàyyi suñu yëpp ngir Seex Ibra daal di teew lolo nak du am am dara ndax ñun sëñ Tuubaa dimbali ci di jàng am na suñu benn borom jàngkat bu ñu ñëw au contraire sax dañ ñuy ñëw waaye ne moom amuñu kenn kuñ ci di dimbal loolu nag du suñu mën du suñu dara waaye ndimbalu sëriñ bi nag kon ñaan rek mu soxna soxna soxna soxna bi koy bu baax soxna te xam na ñoom bu baax lañ bëgg ma ngir sëñ Tuubaa kon yal na yàlla yokk seen jàmm barki Seexul Xadim sëñ yal na la yàlla yokk yow yàlla naa dogal dama laa jàpp ngir sëñ Tuubaa du dara nag na seerafa du am am du dara waaye comme ni ma ko ko bàyyi ñoom fi mu te yàlla xam na ne fi ñu waroon a jàng ñu waroon ñu faa fay bëri waaye sa jëmm ji moo tax ñu bàyyi lépp teew la barki borom Tuubaa kon sëñ bi bisimilah leen kontaan na baax du tey wax dëgg fi yàlla ku dégg lii xam ni jëf ngeen fi jëf du neex ñëpp macha allah ay nit am ngeen waaye dëgg fi yàlla ñii ñuy tëggal ci conseil bi leen di jox lu raw loolu yéen nañu ci liggéey bi ba moom ngir ñaan du wér ci ndax kaab keroog ba muy waaye rasulullah ba rasulullah jox am manto ba mu ko décoré la ko ñëpp dégg te suñ tubaab suñ tubaab gën a ko way suñ tubaab yi ngeen di ak yéen bi ngeen way ba ñëwee seet ma la waykat yëpp kon am na ci loolu loolu ab tàggat am na kon amee gi ngeen gii mu jël ay laxasaay yu mel laxasaay yu jox leen nee na yàlla doon ay daraja yu rëy ci ci ci tagg rasulilaay góor leen tagg ci décoré góor rasulilaay décoré ndax rasulilaay ku ko tagg bu rëy comme guddi na sant na wér ndax far yéen moom moom siit na ngeen ñëw sax dem xam nañ ma xam ay bilaal mii laa bëgg ngeen teeru ko ndax moom tamit suñu dëgg-dëgg moom ca amoo deux moom mii ci duggatu yàlla jógee ba caari sur mer war a dem ba njaareem fi mu nii caari la mooy rek fa ñëpp di bëgg yàlla moo fa teg kon fii yàgg na nga xam dañ koy jox rek mu màgga comme mel na kii defee bu defee rek bu nu wàccee rek ñaan ndax fi ne guddi gi àgg ñu ngi sant ñëpp rek liñ mën a tudd ak ñun tudd ndax am na ñoom nee na seen tudd

la ilaha illallah la ilaha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 خليفا سريفا حيدرا كن كلام يا كوي مجي باي شيخ أمدي فالو باي مسمى بكيفال لا إله إلا الله لا إله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 ay góore bayib faal ku lay am di faal see Mustafa faal am di faal góor faal doole nii خيرا حميدا دبلا يرمن فار دول بيرا حميدا أم دفال شيخ مصطفى فال يلا دافال ينغا يغ في مكة جيتنا شيخ متخابك يغ في yàgg fee jiite naa Mbàkke Cheikh Mountakha yàgg fee